jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaar tey nag ñoo ngi fii village artisanal euh, ñëw si scientifique bi nga xamante ni mooy diggante soq ak gàmmu gay ñoo ngi toog ki nga xamante ni mooy Mamor doomu Faas doomu Faas Mbaaw Mamor nuyu naa la. waaw naa leen siyaar naa leen di leen jox seen wàccuwaay yéen communautaire communicateur traditionnel yëpp xam di la nuyu yow bu baax di nuyu waa Wasaare Lamb ak Serigne Bamba. mais tey ñu gis la nga ñëw dugg si rek bàkku nga daje ki nga xamante ni mooy Paul bu daal combat bi yàggoon na. daanaka jub si na tey ngeen war a ñëw def face to face tey naka nga ñëw. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla rek di ñaan suñu papa yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana di ñaan sama yaay yàlla na ko yàlla bàyyi ba mu fekkee sama njariñ lamb ji dañ ko namoon dañoo namoon li ambiance depuis daaw bëre wuñu ñuy préparé xam nga moo tax ba ma dugg see rek xam nga sama deret deretu mbër bi jóg ma siif xam nga yaa ma gën a xam participer bok ndax suñu événement la quoi bis bi ko moom or que promoteur moo tëgg lambam sax mais lamb suñu lamb la ñun ñoo ko moom ñun acteurs yi war a bëre xam nga nañu wone fulaak fayda ak jom rek xam nga neexal làmb ji jaay combat yi man boog ku may bëreel damay jaay sama combat comprendre nga bëgguma xam nga après yow ma gën a xam maa bëgg su ma bëree rek si suba si ñu woowaat ma jox ma combat ma nekk xale di entraîner xam nga docteur ñu mais ñu gis non balaa ngaa gërëm mbër moom foog fekk ne sant gërëm mais balaa nga gërëm ñu gis combat bi yàggoon na combat bi di nekkoon depuis daaw avant Covid bi di ñëw samedi bi la dimanche bi ngeen woon ba boobu ba léegi ngeen nekk di waaj naka ngeen doon entraîner. waaw dañuy wàññi séance yi rek boole kook job bi te jamono ji moom mbër bu si amul liggéey moom da ngay perte fi ma waxee ak yow nii si entreprise laa jógee sama sama patron moom bàyyi pour ma ñëw barke Serigne Touba Mbaga Total Events moom la sol nii wóor na yàlla ñun ñoo war a garder course bi Paris Dakar bi waaw falaa laa nekk nii su ma jógee fi fa laay dellu barke Serigne Touba Mbaga du nuyu Père Tino bu baax ak docteur Niane xam nga parti Teranga Sénégal Touba di ko nuyu baax di nuyu Père Modou Fall Brescia ñoo ñoo ma jàppale quoi ba ma yegg si fii Aliou Thiam ak waa yëpp di nuyu dafa mel ni dafa mel ni yëguloo yëguloo ko benn yoon non non làmb ji ñun ay xale lañ nekkaguñ ay mbëri mag ñun dañoo war a boole bëre liggéey bu combat bi ñëwee ñu bëre chaque dimanche mën naa bëre man ndax ñoom ñanku gars yi ñoo ngi sama ginnaaw Ousseynou asan Assane Djelaani Pape Gueye Baba Ndiaye jeune transitaire xam nga ay xale lañ mbër na dem uti liggéey mais naka ngay waajee Paul bu daar parce que Serigne Bamba Paul bu daar koñom laay entraîné koñom parce que loolu nu vidéo yi ñoo ngi sama kool soo paree soo bëggee après ma envoyé la ko koñam motoom dama siy toog motoom day dem géej fi ñëw fekk ma ma toog si motoom. non mais est-ce que du ngeen combine kon. barke Sëriñ Bamba combine ñu ay mbëri ndaw lañ. da ngay dem boo ñëwee toog ci biir ci kaw motoom moom. dafa ma romb fi ñuy liggéeyee ñun mu gaari motoom dem ba mu ñëwee si kaw motoom la mu fekk ma toog mais loolu xam rek ay mbëri ndaw. est-ce que làmb neex kon. damaa bëggoon ñu siffler ko si biir ndox mi léegi. ndox mi moom mënu leen cee bëri moom ndax jël du gaaw a am. Peulh Dar maa ngi moom il faut am ndax combat bu mujj dafa masinil man li ma koy ñaan rek mooy jour lamb mu taxaw suul tànk yi man dañ maa yónni yàkkamte ma waa Fass Mbao waa ginnaaw raay. combat bi paas dañoo gis arbitre dafa sifflé nga doo jàpp est-ce que da nga xeex ak Peulh. booy du ma si bëree kenn une minute bu taxawee dëggal boppam barki bu dawee du ma ko dàq ji nag tollu ma fu may dàq jee kenn ndax dama wone samay preuve jàpp booy Jules daan ko jàppale leen si góor Kumba ñëpp daan leen si une minute moom bu dëgalee boobu ma boole ko si liste boobu liste noir bi. mais est xam nga ne njool la bu siggee taxaw ak yow ah xeex bi dina xaw a yéeme de. njool ak ndaama yëpp amul sens affaire yi xam nga lan la suul say tànk ñi mi li ngay def. combat bu mujj dafa match nil daa daw ba niil man nekkuma fi di dàq nit de. léegi loo koy wax. mu taxaw ñu bëre. combat bi daaw ba ren la ku entraîné wul am doole dootoo am te man waa Fass dañ may xaar am fu garaaw fu ñu may séntu barke Serigne Bamba. di wax sama yaay na yokk ñaan yi man mooy sama gàllaaj sama yaay kase barke Serigne Touba Mbacke di ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana di woo waa Brescia yëpp mos sëy borom Brescia bébé Fa Père Modou Fall Ndiaye barke Serigne Touba Mbacke. mais lan lañ mën a xaar ci yow ci mobilisation ndax ku ne xam na ne soq day ànd public gàmmu goy naka noonu te lamb dafa nam bés mu mag. dëgg dëgg lu leer ngay wax combat bi ku amul mobilisation rek cuub nga sa drapeau. moo tax maa ngi woo waa Fass Mbao yëpp ñu ñëw jàppale ma si sama bis bi la man maa ngi koy woo bu baax persisé marché Kermer di woo Grand Zal di woo Modou Fall du ma ko fàtte di woo Ahmed sama mag Ndiaga Maas Jelaani Ousseynou ak Assane Pape Gueye di woo Vieux Maas borom Medina Fass di woo Moussa Soulay di baax a baax a baax Maodo farans fàttewu ma leen barki Serigne Touba Mbacke billahi walaay taalaay ñoo ñoo si war a mën a jàpp quoi ma dem bu dul ñooñu rek day metti xam ay Aba borom Australie Assane Fall xam nga il faut ñu jàppale ma si combat bi nii combat déclenchement la mun na ma yóbbu fu sori si làmb te tegu ma sama bët si booy yi nii ay spécial maa sonn si spécial yi wër na yàlla. baax na di la di la bàyyi ba ci kanam. waaw di nuyu sama gars yi ñoom Kara Doole xam nga rek ay ñoom Papis Karbala bul laal ñoom may contact xam nga di nuyu Fallou xam yaa ma gën a xam ñu koy wax fils de Max gars yi ñoo si jàpp quoi ñu wax ñu nag waa jàmm gën si mbaaw ñoom Fóoru ñu benn lañ. ñoom may jàppale si combat bu baax a baax ay jëm soo manqué wu ma contact si combat bi quoi yeneen combat yi dama si doon manqué contact. dama pare barki Serigne Bamba kii barki Alxuraanu Karim laa dama koy daan maa ko waat man. tey ngaa bañ barki Serigne Bamba pour bu daaru dama koy daan. waaw mis bi dafa am fu ñu la dee. déedéet damaa musul entraîné nii si combat wër na Serigne Fallou Mbacké. combat bi damaa entraîné si entraînement laa ko teg te du ma ko reculer maître. bu taxawee barke sëñ Bamba ma dox si kawam du ko daan suñ Touba lañ yaakaar tey ak ëllëg dina neex. day neex day yëngu. doomu faas bee ngi nii. waaw may gërëm xam nga ñeneen ñi ñi nga xam ne tudduma leen ku si mel ni xama nga Omar Ndour Omar Ndour président ay see Fass Mbao Khoulou saw Mo Soulay Idi Zor Poro bi xam nga Aliou na ko woo di di ñaanal Ba Diop équipe nationale bi da ko woo yàlla na ko yàlla defal jàmm Ba Diop di nuy suñu Zor yëpp xam nga ku ñu limu rek dañ la fàtte barke sëñ Bamba Xalifa Wade di ko bëggee bu baax a baax a baax bëggee ñëpp di di bëggee ki ma la doon wax léegi pari parti Teranga Touba barke Serigne Touba Mbacké baay yow yàlla ñëpp am jàmm daal.